Euh, su melo donc dafay jéem a sécuriser exactement. Mhm. euh... confrontation 8e de finale ñu ñu wara war a dajal. maanaam daf ci am solo quoi. Hmm. première place daf ci am solo. waaw daf koy sécuriser bu ñu deuxième. tey malheureusement mara day buñ bu ñu jëlee hmm. Euh, je pense deuxième groupe A lañu ñu dajal. deuxième groupe A Nigeria la. te hmm. loolu moom dañ ko dafa non instant dafa teel war Sénégal Nigéria affiche huitième de finale day teel <laughs> donc nañ xaar ba ci kanam tuuti léegi euh, gagné gagné wala nul assuré première place bi moo am moo moo moo tane. Hmm. bu boobaa ñu mën a am ci yeneen équipe bien bien vrai que mën nañoo am sax équipe bu équipe surprise. Hmm. parce que boo xoolee Côte d'Ivoire démb. Euh, kii di ginne équatoriale da ko ndulli ndulli mett instant yi euh, troisième place day xëccoo. troisième place tu équipes non quatre équipes qui troisième place tu l'as la beaucoup. Hmm. Ghana pareil je tamit démb dafa nul Il faut mener 2 heures, ba temps bi di Mozambique hmm. après mon watch, hmm. troisième place bi. est qui deuxième place ay Sénégal il faut éviter quoi ba bañ a ci ci yenn ci yenn punkal yooyu noonu. comme mm. comme ni leen koy waxee. Mm. alors si yenn punkal yoy non exactement euh, japp nga ni nigeria nak pour ñu am ko day xawatel wa teel. non tel na parce que mooy doon deuxième si li na xam ne moo di poule A bi. moo jël deuxième poule A bi euh, équipe surprise Guinée équatoriale mom mooy moom moo ne ci kaw avec deux victoires un match nul. mais euh, ñooñu tamit ñu def ay espoir yu am solo parce que kan bi ren dafa nekk kan bu exceptionnel. non mom kay vraiment ren kan dafa confirmer ne que ni équipe bu ndaw amatul ça n'existe plus. Toutes hmm. tour li toutes les équipes ça valent. ok ñoom ñëpp des ci bokk amul ay équipe petit pousser. non. Hmm. amatul sama gis hmm. Cap Vert je surprise parce que moo le premier tu am trois matchs deux victoires deux match nul. te un match presque mënoon gagné mais teggi un quoi ok donc nous, non exactement euh, Moi, situation bi def situation bi le Sénégal euh, l'État tax affaire bi donne mhm. parce que c'est important aussi. Euh, dañuy dem si li nga xam ne que moo di benn compétition boo xam ne dafa xaw particulière exactement. effectivement euh, boo waral toutes les équipes euh, aujourd'hui euh, amatul équipe bu ndaw amatul équipe bu mag. Mhm. concrètement. Mhm. alors su demee ba Cameroun di égaliser ak li nga xam ne que moo di la Guinée. war nañ daal di war def attention bu baax a baax sax. Mhm. malgré le score bi nga xam ne itam doon nañ ko Cameroun mais quand même il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. par rapport bien sûr à cette sélection nationale. Euh, sélection nationale du Sénégal. Mm. ah bien sûr surtout tey match bi euh, ñu bari dañ jàpp ni que ne Aliou Cissé dafa tourner équipe bi parce que qualifier na ba pareil quoi. bon mën na mën tourner kayit mën na tourner quoi parce mm. que li ma la wax rek. match mm. bi un jeu. enjeu. tey Guinée bu ñu dóoree dañuy jël deuxième place te le du suñ arrangement l'équipe équipe bi pour me équilibrer mën na def ay quelques changements ay quelques ay quelques réaménagements quoi xam pour mm. que pour que équipe bi baña baña bañ déséquilibré. Mm. moo gën sinon euh, bu indee ay changement yu yu yu bari rek mën na mën équipe mën na jaxasoo mën na indi ay perturbations joueurs yi mën nañ bañ a xam seen placement ki war a taxaw fii xam nga loolu yëpp c'est à éviter. maanaam cela nécessite pas peut-être d'un grand changement malgré mm. euh, aujourd'hui euh, ki nga xam ne que di Abdou Diallo à non, cause de ces deux encaissés mhm. euh, du football étant tant d'autres et tant d'autres. Mhm. Là aussi, il y a une cité de ben chamboulement. Bon, pas tout à fait. Bon, en fait, euh, Abdou Diallo du football, mais Moussa Niakhaté ñëwaat na. Mm. dafa blessé woon mais ñëwaat na tey mën na départ kay mën na départ lo aussi tamit Abdoulaye Seck. il a l'embarras du choix mën na choisir ku ko ci neex. Mm. mën na jël sax Kaliba capitaine Kalidou Koulibaly teg ko ci banc bi pour nopal ko pour un éventuel 8 euh, huitième de finale. peut-être mën na nekk daal di daal di footballoo ñaari booy Abdoulaye Niakhate ak euh, Moussa ñaxate ak ak ak euh, Abdoulaye Seck mën na nekk. daal di change flanc yi aussi tamit. bu ko hmm. neexee mun na ko changer kayit mën na ko hmm. bàyyi noonu moom daal ça dépend daal ça dépend. Hmm. waaw ba ci ba ci milieu terrain bi aussi tamit lu lu lu Sénégalais yi di ñëpp di xaar ñu ngi xool ba xam euh, dafay changer trois trois trois trio bu bu bu bu mu installé woon keroog contre Cameroun. mooy ñetti booy Pape Gueye lamin kamara ak Pape Matar Sarr ba xam day indi tey Nampalis Gana ak Pathé Ciss ou bien ñetti ñu ñetti ñu départ la woon keroog moom lay départ la waat. loolu aussi tamit ñu koy xaar ak ba ci kaw aussi tamit attaque bi ba xam Sadio Mané day départ ba xam Ismaïla Sarr day départ Elimane Ndiaye Nicolas Jackson. Mm, mm, mm. Mm-hmm. alors nous euh, par rapport à l'équipe justement l'équipe nationale au Sénégal qui mm-hmm. alors euh, que ni réaménagement parce que mm-hmm. précédente et comme euh, nous avons qui gagne. ne change exactement alors mais. Abdou Abdou Tay Abdou dina guen parce que ñaari carton jaune yi nga xam ne encaissé na ko et tant d'autres et d'autres concrètement euh, Mame Cheikh lan ngay xaar si ki nga xam nekk moo di Cissé à travers li nga xam nekk moo di ses de départ euh, fan na koy xaaree peut-être pour mu daldi di war classer li nga xam nekk moo di hommes mhm. euh, pour venir à bout li nga xam nekk moo la Guinée pour risque de baña am blessure hmm. euh yenn boy comme ku ci mel Lamine Camara keroog match bi euh, àggalewu ko parce que daf ci amee gaañu gaañu daal di euh, mais nee na commencé na waat entraînement mm. de même que Moussa Niakhaté Comme tamit commencé waat na. donc man euh, Aliou Cissé foofu fu ñu koy xaar mooy mu xaw leen a préserver tuuti. préserver waaw mu xaw leen préserver ku ci mel Lamine Camara am match bi am na amul enjeu. xaw ba xam comprendre nga fi bëgg am na enjeu am na ah, maanaam maanaam euh, maanaam jarul jarul jarul jël leen risques yi quoi maanaam pour les ténors ñu éviter blessures yi carton li war a ñëw carton yi euh, blessures yi yooyu yëpp mën na mën na mën nañ ko éviter quoi te am na mi maanaam ñu jël ko sereinement euh, maanaam jël ko sereinement effectivement effectivement armé armé wu nañ pas légèreté mais sereinement rek effectivement sereinement rek. ak ñu ñu ñu ñu kii ko ñu démarrer ko comme ñuy démarrer yeneen match yi rek ah. waaw bañ a dem ak stress euh, complexe. waaw whatever ñu mm. fubal gagné. Mm. daal di xam xanaa moom bu ñu sax dafay dafay dafay gën a may équipe bi confiance gën a tiital yeneen yi suñu suñu adversaire yi parce que ñëpp instant ni équipe yi nekk ci compétition bi ñëpp suñu suñ suñu adversaire la mën nañoo mën nañoo mën nañoo daje ku ne. champion titre effectivement mun nañoo daje ku <laughs> waaw moo tax ñoom ñëpp ñëpp suñu adversaire lañ jamono ji voilà mhm. donc mi ngi noonu exactement euh, euh, en ce qui concerne aussi li nga xam que moo les remplaçants parce que tout le temps dañuy seetlu ni Aliou Cissé remplaçant, remplaçants dañuy def effet. waaw effectivement effectivement moo tax <laughs> Aliou Cissé gars yi dañ ko yab nag dañ koy critiquer di ko sànni xeer des fois mais <laughs> mm. ah keroog de contre Cameroun moom moo gagné match bi moom waaw kara kon Cameroun mën naa ne ci ñu gagné match bi ci la bokk. Mm. bref mm. Euh, remplacement ah bon ça dépend lu ma la wax rek remplacement moom du looy du looy du looy du looy programmé quoi. non du looy euh, prévoir mais am na ñoo xam ñii dañuy xam ni ñii second mi-temps liy dugg moom. non ça dépend euh, non c'est pas forcé non c'est pas forcé C'est pas forcé obligatoire ça dépend ci ci ci fusionné match bi nous, nous, nous, mu demee bu fekkee match bi laaj na changement laaj na ne jour tel dafa war a génn waaw boba jour tel dafay génn. bu ko la bu ko euh, laajul mais nekk changement wul changement nañ bàyyi oui. Euh, effectivement ah mais bien sûr non la non lay demee di loolu moy logique football munoo nek ah forcément. mais satisfaire tout le monde. non Fallou du loolu <laughs> non non Fallou football amul loolu. Hmm. football amul loolu hmm. amul nek amul ne ah non dama wara satisfaire ki dama wara jox ki temps de jeu non non non non bu fekkee ne comme par exemple bu ñëwee ci milieu terrain bi. Euh, yow xam naa ki tax ngay wax mooy gaana Gueye yow <laughs> Gana moo tax ngay wax te da nga bëgg tout le temps Gana dafa war dugg dafa war no bu fekkee ne trois mille terrain yi. mais Gana bi passé duggam a été. Euh, waaw mais waaw non mais le te de Sadio Mané Gana gann ah waaw waaw waaw moo def pas décisif moo def pas décisif mais aussi tamit taxul ne militaires yi dañoo cuune woon moo tax moo tax Ghana dugg déedéet demeewul noonu waaw c'est juste que ni Aliou Cissé dafa bëggoon a casser rythme bi parce que boo xoolee je pense est-ce que est-ce que du ci deux un yi ci la dugg si jam si jam trop waaw moo tax boobu dafa bëggoon mu mu gën a dynami mu gën a dynamiser milieu terrain bi remplaçant yi day def effet non dafay def effet. def effet kan. ok mais aussi kaw ñom uh-huh. Cheikh d'autres quand même. Uh-huh. Euh, ces là. tay uh-huh. aussi waaw euh, bi expérience laajul que ni rek euh, côté physique côté mm. détermination mm. mais laaj na aussi tamit expérience le jour bi ci mel ne Cheikhou Kouyaté ku ci mel ne Gana Gueye ku ci mel ne euh, Sadio Mané Ismaïla Sarr ba ci capitaine Koulibaly gardien bi Edouard mm, Mendy ñoom ñëpp dañ si war a jouer ben ben ben ben kii comment dirais-je ben rôle bu majeur mhm, effectivement waaw daf leen daf leen daf leen ci dina leen ci xaar soxla nañ leen ci bu baax a baax baax mhm.

bi xamni xam ni itam euh, ñeel na fa nga xamni ni itam mooy zaanu ko Côte d'Ivoire alors ma daal di ñëw si historique bi parce que c'est important aussi daal di fàttali digganteeg li nga xam ne que moo euh, le Sénégal ak la Guinée dafa yag doon li nga xam ne que moo terre bi mhm. euh suma ñëwee si historique bi exactement ñom c'est seen premier match ñu ngi ko joué euh, un match amical en 1963 mu daal di mujjee si euh, benn bal fep maanaam 1-1 1965 mhm. aussi kan bi nga xamni ni itam en 1965 euh, euh, euh, aussi Coupe d'Afrique des Nations encore une fois le Sénégal a li que Guinée Sénégal a 2-0 1965 Sénégal a di aussi 3-1 Blexican, 1966 match amical Sénégal Guinée a di li 5-0 1967 Guinée a di 3-0. 1967 bataille CAN Sénégal a di 4-1 1967 Bataille Cannes, Sénégal Dadidor, Guinée 2-1 1969 Cannes, Sénégal Dadidor, Welcome euh, Walcon Guinée Dadidor, Sénégal 3-4 et 1969 euh, digganteeg li Sénégal ak Guinée Moudad, 1-1 aussi en 1970 euh, match amical Guinée Sénégal Dadi Diéré, 3-1. Euh, Guinée daal di li nga Sénégal ñett pas si benn 1970 euh, aussi match amical le euh, Sénégal d'Adi di nan meelu si kanamu li nga xam Guinée 4-0 1970 bataille tey li nga xam match la aussi encore une fois Sénégal d'Adi di témboog li nga Guinée 0-0 0 but partout 1977 match amical le Sénégal ak li nga Guinée Sénégal daal 0 1980 Amical bataille Sénégal daal aussi qui n'a xam Guinée 1 0 1981 match amical le won waye qui n'a Guinée daal Sénégal 1 0 waye li n'a 1982 aussi match amical 1 1 la daal 83 euh, Sénégal Guinée Sénégal qui d'or un euh, but à 0. 1984 euh, aussi amical la Sénégal Dadi du door li nga euh, Guinée 1 but à 0 1987 euh, aussi Cannes Sénégal Dadi Lina li nga xam que Guinée 4 0 1987 aussi Cannes Sénégal Dadi temo témook Guinée 0 0 1994 Cannes Sénégal Dadi Lina li nga Guinée 2 buts euh, à 1 1999 euh, aussi amical Le Sénégal Dadidour, Guinée un but à 0 en 1999 aussi amical Sénégal Dadidour, Guinée 1 0 2000 Cannes, Sénégal Dadidour, Lina Mori, justement euh, wala kon Guinée daal di Sénégal un but à zéro 2004 nag et d'autres étant d'autres ma ni kon euh, lii may wax nii dañuy a des fois. Mhm. des fois ñu xaw a li nga xam que moo di justement mhm. euh, égaliser Sénégal su ko gagné qui Guinée gagné ko fin donc. Mhm. entre temps. non mais bon xoolee ci 40 mm. dernières confrontations yi. 40 dernières confrontations yi. Sénégal moo moo ci kawam. largement moo ne ci kanam. Mm. avec avec 21 victoires contre 12. sept matchs nuls. Hmm. Mhm. alors Sénégal moo ne seen kaw mais doguma la Fallou hmm. mais compo compo officiel yi gis naa ni génn na. affiche affiche affiché affiché na. Euh, te liñ ci liñ ciy seetlu mooy euh, nemmewuñ ci pratiquement changement yu bari quoi. Hmm, hmm, pratiquement même même équipe bi moom moom la moom la euh, Aliou Cissé daal di reconduire ku ci mel ne daal Abdou Diallo xam nga nañ sànq dafa blessé. Abdoulaye Seck moo ko remplacé. kii di Lamine Camara ne woon naa la moom tamit dafa amoon tuuti blessure Nampalys Mendy moo dugg ci milieu terrain bi moo ko mais à part ça le reste moom. ñu ñu contre Cameroun ñoom ñoo départ donc euh,